ajuma yem ak fukki fan ci weeru ma mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen euh, magazine bi di soir d'info wala boog d'information am ngeen ne mooy soxal lépp lu aju ci xibaar ci télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu jot na ba tegal juróom-benn simili nii lañu fas yéenee ànd ak yenn ba euh, fukki waxtu ak euh, benn. Euh, yu euh, manqué ay simili euh, kii ñu àndal ci waxtaan bi di Cheikh Lo opérateur économique la foofu ci réewum Côte d'Ivoire ñu ngi lay nuyu sëñ Cheikh leen di fay soxna si. voilà mu ngi noonu yow nag nga bokk ci communauté sénégalaise bi dund foofu ca réewum Côte d'Ivoire laata ñu dugg ci waxtaan bi xam ngeen ne njiitu réew mi amal na tukkeem bu njëkk foofu ca réewum Côte d'Ivoire taje na itam ak le président Alassane Ouattara waxtaan nañ itam ci lu jëm ci wàllum koom coopération diggante ñaari réew yeeg ana yées jéego les ca war a dox waaye laata loolu bi fa la ñu def. ñu ngi si jàmm alhamdulilah ñu ngi si jàmm bu dafa mel ni Sénégal euh, bu ñu demee Côte d'Ivoire communauté bu am doole moo fa nekk n'est-ce pas. waaw am doole moo fa nekk communauté boo xam ne boo leen fa fekkee di nga leen fekk euh, ci seen réew. Mhm. comme ni nekkee Sénégal noonu lañ fay nekkee am nañ fa jàmm. Mhm. fraternité bi am suñu diggante ak Ivoiriens yi je pense que képp ku ma sa ñëw Côte d'Ivoire rek di nga ko constater. Mhm. donc ku fi jógee ñëw fa soxlaatoo ngay dépayser wala ngay am benn problème. Mhm. Euh, sa réew lay doon daal. donc communauté bu fort moo fa nekk. Mhm. et euh, ñu bëgg liggéey aussi. très bien ci yenn domaine la ñuy gën a yëngu foofu ca Côte d'Ivoire doomu Sénégal yi. waaw doomi Sénégal yi nag ñi fa ëpp ci domaine yi ñuy yëngu mooy euh, restauration bari na fa ñu ko fay def. Mhm. bijouterie yi bari na ñu ko fay def. ñaw euh, waaw euh, tailleur bari na fa. Mhm. bijoutier yi bari nañ fa. Mhm. et yi. aussi bari nañ fa commerçant yi nga xam ne dañuy jaay lépp lu jëm ci matériel électronique ak lépp lu jëm ci habillement et consort loolu moo fa ëpp ci li ñuy def très bien xoolee taarix c'est pas une première ko du génération yu mujj yi loolu dafa mel ne lu yàgg la parce que da ngay fekk Côte d'Ivoire ay njaboot yoo xam ne dañ naan la seen i yaay seen i pap fa lañ juddoo et pourtant ce sont des Sénégalais Euh, sénégalais yi bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo fa ñoo fa njëkk dem. Mhm. ñoom aussi la fa Ivoiriens njëkk yaatal. Mhm. boo demee di nga fa gis tey ay familles yoo xamante ni comme la famille Thiam. Mhm. nga xamante ni l'un de leurs enfants est aujourd'hui en train de briguer la magistrature suprême. Euh, la famille Cissé nga xam ne am na aussi ay ministre yoo xam ne ay et puis d'autres familles yoo xamante ni ñu ngi fa depuis. Berlurette voilà ci ay di ay di ay sénégalais Euh, li nga xamante ni moo gënoon euh, moo gënoon euh, kii moo tax comme dañu am njiit yu bees. Mhm. yu doog ñëw. Mhm. c'est ñun occasion la si ñun. pour ñu wax voilà. dinañ ci ñëw incha allah mm. c'était juste pour camper le décor. wax ci mm. communauté sénégalaise boobu et puis mm. clin parce que ñu ngi suivre à travers le petit écran et puis ni nga ko waxee sànq ñaar réew la yoo xam ne seen jëflante yàgg na au-delà même le président Houphouët-Boigny ak ki nekkoon soxnaam bu njëkk nekkoon ni euh, li leen dox seen diggante bari na léegi nag ñu ñëw ci actualité ak euh, le président Bassirou Diomaye Faye mi fa dem talaata bële amal fa ab tukkib nemmeeku ñu fàttali ne opérateur économique nga yow Cheikh Lo euh, tukki nemmeeku boobu lan ban impact la mën am surtout sur le plan économique waaw tukki nemmeeku boobu déjà c'est bien que comme dañuy doog am président bu bees. te président ivoirien bi fa nekk nii moom ça fait plus de dix ans mi ngi Côte d'Ivoire. Mhm. président le fait que mu ñëw fa déjà saafonteeg moom. Mhm. c'est un bien mais aussi wax na ko ci discours am. Mhm. wax na que ni daf fi ñëw pour euh, pour pour raffermir tout ce qui est relation. Mhm. entre Côte d'Ivoire et le Sénégal je rappelle que ni euh, Côte d'Ivoire ak Sénégal am nañ 34 accords. commerciaux yoo xamante nii euh, voilà yu yu yu yu ñu war a gëstu la mm-hmm. donc euh, li président bi def euh, ñun ñi fa nekk mm-hmm. c'est un plaisir pour ñun ñu gis suñ président bu bees mm-hmm. mais aussi ñu gis ne ñëw na Euh, saafonteeg président bi nga xam ne ci réewam lañ nekk. Mhm. loolu dinañu dox plus de sécurité foofu noonu. très bien aywa ñu ñëw ci jëflante bi euh, euh, jëflante bu yàgg la. Mhm. sur tous les plans mais ñu def taxaw seetlu ci plan économique ki am koy wax sànq lu ëpp mhm. fanweeri accord. ñu xaatim ko diggante ñaari réew yooyu. ana fan lañ ci toll ci liggéey bi. waa léegi nag euh, loolu sax moo nekk euh, un peu li nga xamante ni moo paradoxal parce que euh, ñaari réew bu ñu amee 34 accords te boo jëloon population ñaari réew yi. 100 personnes yoo ci jël peut-être benn ñoo ci xam exactement accords yooyu lan la. Mhm. donc je pense que jamono ji jot na pour accords yooyu. Mhm. ñu jéem ko fésal. ba ñëpp ñi nga xamante ni dañu intéressé wu par l'axe Dakar Abidjan ñu xam yan opportunité leen accords yooyu di may mhm. pour aussi ñu mën ci jariñoo parce que accords yooyu dañ ko signé ba pare mhm. mu toog foofu rek nit ñi xamuñ ko wala mënuñ ko jariñoo mhm. donc c'est important en plus euh, ma lancé benn appel vite fait mooy que ni suñ autorités yu bees yi il faut ñu xam ne li may wax nii nag c'est valable pour Côte d'Ivoire c'est valable aussi pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest yoo nga xam ne ay sénégalais ñu fa. Mhm. premier point bi nga xam ne ñun sénégalais yi dund Côte d'Ivoire ak yi dund ci yeneen réew yu nekk Afrique de l'Ouest moom lañ njëkk a soxla. Mhm. mooy assistance ak sécurité et orientation. Mhm. assistance ak sécurité ak orientation nag buñ ko waxee ñu bari dañ naan ñu non foofu am na consulat am na ambassadeur donc am ngeen assistance et consort oui am nañ assurance. mais le plus souvent da ngay gis réew yu bari yoo xam ne. consul général ba ñu fay nommé soit dañ koy jëlee fii rek dans la diplomatie yóbbu ko fa wala ñu jëlee ko beneen réew indi ko fa alors que mm-hmm. xamagul communauté ba mm-hmm. xamagul réew ba nu mu tëddee mm-hmm. du coup pour bala mu faa mën def dara dana toog cinq ans yoo xam ne pratiquement day jàng cinq ans yi bu jeexee ñu affecté ko fa neen donc ça c'est un problème donc ñi ngi ñaan suñu autorités yu bees yi ñu xalaat ci affaire boobu de telle sorte que réew yi nga xam ci réew ma boo fa demee di nga fa fekk sénégalais yoo xam ne def nañ fa 30 ans wala def nañ fa 40 ans wala sénégalais yu fa mas a servi yoo xam ne dinañ ko xam bëggoon naa ci ñëw kanam heureusement tontu nga laaj bi parce que bëggoon naa nga wax ñu si jafe-jafe yi mais sànq da nga junju 34 accords yi yéen ay opérateur économique ngeen ay doomu Sénégal ngeen di jëflante ak ay doomi Côte d'Ivoire mm. euh, accords yooyu gëstu ngeen ci mm. moo ci gën a fës wala ci boolu moom lañ ci gën a mën a jàpp. par exemple tey boo dañuy wax la libre circulation des personnes des biens. Mhm. et des capitaux. Mhm. loolu ci accords yi la bokk. en mhm. Afrique de l'Ouest fii dans mais tey loolu euh, pratique bi. c'est pas aussi pratiqué que ça. donc nit ñi du dañ koy jëfee parce que tey boo jëndoon marchandise. Côte d'Ivoire wala nga jëndee marchandise Sénégal boo ko yóbbu Côte d'Ivoire wala Côte d'Ivoire boo ko indi Sénégal da gis ne boo jógee si réew boobu bëgg a dem si beneen réew boo fay dugg dinga gis ñu fixé la ay tax douanières fixé la yeneen ak yeneen yoo xamante ni. Mhm. da ngay seetlu ne ce plus dootul libre circulation des personne et des biens. Mhm. boo jógee aussi fii nii par exemple nga jël yoonu suuf bi bari na ñoo xam ne bu ñuy dem dañuy jànkonteeg ay jafe yoo xam ne da xam ne sax la libre circulation des personnes même mhm. nekkagul. quelque chose de très pratique donc yooyu yëpp je pense que ni si si accords yi la bokk bokk na si accords yi aussi les les tout ce d'origine normalement bu jegee Côte d'Ivoire war a dugg fii <laughs> war a TVA bi rek nga war a fay mais produit d'origine souvent du du du du loo jënd rek mën ko am du loo jënd rek par exemple yow mënoon nga dem Côte d'Ivoire léegi dem jëndi robe mhm. mais ki nga jëndee robe yi kooku amagul yenn papier papérage ak tout ce qu'il faut pour mën la jox benn certificat d'origine mhm. donc yow tey marchandise boobu boo ko indee fii da ngay gis ne dañ koy bëgg dédouaner de manière normale alors que yow leer na ne Côte d'Ivoire nga ko jëndee Côte d'Ivoire lañ ko defaree mhm. fa lañ ko ñëwee fa nga ko jëndee mhm. donc loolu aussi yeneen la xamante nii war nañ ko gën a xoolaat pour mu gën a yemb parce que nit ñi ëpp ñiy dem Côte d'Ivoire wala ñiy ñëw Sénégal am ñu yenn moyens yi pour mën a dem ci usine commandé fa leen defal ay certificat d'origine loolu aussi ñi ngi ci ñaan ko bu baax aywa léegi nag wax nga ay gàllankoor ci accord yi mhm. mais quand même la collaboration am na beaucoup de point positifs mhm. et mën nañ ci citer par exemple yéen nag yéen mhm. collaboration bi liñ ci gën a citer mooy ivoiriens yi mm, bëgg nañ sénégalais yi Euh, et puis wóolu nañ leen. Mhm. sénégalais yi aussi boo gisee fii bëgg nañ ivoiriens yi wóolu nañ leen. Mhm. amuñ benn problème ak ñoom loolu mhm. mooy premier collaboration bi nga xam ne c'est positif. deuxième collaboration bi nga xam ne c'est positif aussi mooy comme li ma la wax yi fexe nañ ba nga xam nga état yi bu ñu fexee ba am lu ma 34 accords. donc déterminer nañ de travailler ensemble. léegi nag reste accords yooyu ñu ñu ñu ñu mën ko jariñoo. loolu c'est très important ci ci ci ci ci li nga xamante ni c'est positif dans la relation. positive aussi dans la relation tey euh, la majeure partie usines yi nga gis ñu nekk fii Sénégal ak mhm. banques yi nga fi gis ak structures yu bari yoo fi gis mhm. boo demee Côte d'Ivoire c'est les mêmes succursales yi nga fay fekk wala fii succursales yu nga fay fekk mhm. donc ni nga amee facilité ak di jëflante ak ñoom fii c'est historique yooyu bis boo demee ba bëgg a dem Côte d'Ivoire da nga koy rek transféré ñee danañ mën a am ay organes yoo xam danañ sukkandiku pour xam li nga nekkoon Sénégal li nga doon def ainsi de suite loolu aussi lu positif la si très bien gis nañ aussi beneen tendance muy récemment y a quand même n'est-ce pas dañ fa am ay opportunité opportunité yooyu lan mooy pousser jeunesse sénégalaise bi ñuy intéressé wu de plus en plus à la Côte d'Ivoire on peut entre autres ñoo xam ne ils sont dans le showbiz ñi nga xam ne ils dans le commerce ñeneen ñi ils dans la mode mais dañu gis ne quand même il a une forte communauté mais surtout euh, ces dernières années loolu nag je pense que c'est loolu la ñu war a gën a encourager mm-hmm. parce que euh, pays bu nekk si ñaari pays dafa am loo xam ne da ko am te da ko am te dafa jiitoo moroomam moroomam war ko copier si moom mhm. tey boo demee Côte d'Ivoire lépp lu jëm si agriculture xam nga ne voilà mhm. fa jiitu donc ñun am na loo xam ne dañ ko war a copier si ñoom mhm. mais ñun aussi boo jëlee mode tey ak ak ak ñaw ak yooyu xam nga ñoo leen si jiitu ak ay tey boo jëlee cinéma am na lu bari loo xam ne tey ivoiriens yi ñun ñun lañ ci roy donc loolu moo tax tey jeunes sénégalais yu bari euh, ubbeeku boobu marché ivoirien bi ubbeeku te xam ne ñoom am nañ fa seen place. Mhm. moo tax ñu fay dem. Mhm. je pense que c'est à c'est à lu ñu war a saluer la lu ñu war a encourager la. Mhm. yaakaar naa ne buñ ko buñ ko buñ amoon ay orientation yu wér ci Côte d'Ivoire. tey xale yu bari yooyu gis yuy jël gaal gi. wala ñuy jàll ci désert bi. am na ay pays fii nii Afrique de l'Ouest notamment la Côte d'Ivoire boo xam ne war nañ fa mën a am même opportunité yi ñu am Europe. te duñ sonn te duñ jël gaal duñ def dara. aussi lors de cette visite le président Ouattara mu rafetlu euh, jëflante diggante ñaar yooyu mais moom ci boppam reconnaître na ne des na et qu'on peut mieux faire nest pas waaw bien sûr mm-hmm. bien sûr des na parce que boo xoolee tey échange économique bi am entre Sénégal ak Côte d'Ivoire mm-hmm. boo ko jëloon à quatre-vingts pour pas du ay sénégalais wala ay ivoiriens ñoo ko porté le mm-hmm. plus souvent yeneen xeet ñoo ko porté ay libanais wala consort donc sénégalais yi war nañ fii bëri na ay hommes d'affaires yu fi nekk yoo xam ne am nañ seen place Côte d'Ivoire. Mhm. et bu ñu xamoon orientation ak am mhm. benn voie bu leer danañ mën a dugg Côte d'Ivoire. Mhm. Euh, liggéey fa. gis fa seen bopp. Mhm. am na Ivoiriens yoo xam ne aussi noonu lañ bëgg a ñëwee Sénégal am nañ fi place dinañ fi mhm. mën a ñëw gis fi seen bopp. Mhm. donc euh, loolu je pense que c'est important pour que homme d'affaires yi xam ko. et que ñu bañ a nekkati di di trouver barrage foog ne Côte d'Ivoire nekkul ci réewu jàmm wala réewu jàmm la stable na ñu fay dund. ñu fay dund ci nekkin bu baax. ci nekkin bu rafet amuñu fa benn problème. très bien aywa donc justement yaa ngi koy tudd le rôle des a Euh, koom gi gën a ñoŋ diggante ñaari réew mi yéen homme d'affaires yi. Mm-hmm. ban taxawaay ngeen ci war a am ban rôle ngeen ci war a jouer. Mm-hmm. mooy comme li may def nii rek. Mm-hmm. cest tey boo jëlee euh, toujours ñu ñu ñu ñuy ñaan suñu njiit yu bees yi. ñu bàyyi si xel si loolu. parce que Côte d'Ivoire dafa bëri ay produits yoo xam ne da ko am. Sénégal soxla ko. comme Sénégal dafa bëri ay produits yoo xamante ni. dañ ko am Côte d'Ivoire soxla ko. donc nos autorités ñu faciliter Euh, homme d'affaires yi nga xamante ni dañu bëgg a dund ci diggante Côte d'Ivoire ak Sénégal mm. ay ay ay moyens ak ay possibilités Euh, yoo xamante ni dina leen permettre lépp luñ bëgg a jëlee Côte indi ko fii mu facile. Mhm. mais lépp luñ bëgg a jëlee fii yóbbu ko Côte d'Ivoire mhm. ci mel ne café lu ci mel ne cacao. Mhm. lu ci mel ne euh, yenn yenn yenn yenn produits cosmétiques yi. Côte d'Ivoire da ciy produire lu bare bare bare. cacao bi voilà café bi yooyu noonu te Sénégal da ko produire te Sénégal da koy consommer. mais boo jëlee fii xorom wala nga jël fii soble wala nga jël fi yeneen yoo xam ne ñu dañ koy produire à gogo aussi Séné Côte ko produire da koy soxla. la bu ñu fexe woon ba euh, état bi orienté les hommes d'affaires jàppale leen ba nga xam ne ñoom danañ mën a taxaw taxawaayu leadership ci ak euh, secteurs yooyu nga xam ne c'est des secteurs clés mm-hmm. loolu ça sera vraiment bénéfice la pour réew mm-hmm. te xel xalaat yi mi ngi fii Euh, xam-xam bi mi ngi fi. Mhm. Euh, orientation rek ak assistance. Mhm. la soxla de la part de nos autorités. Mhm. pour marché boobu ñu mën ko jël. Euh, mu jariñ Sénégalais yëpp quoi. d'accord aywa muy lu am solo léegi nag ñu ñëw ci li nga doon wax sànq muy lu jëm ci wàllu agriculture. Côte d'Ivoire dañu ci raw. soo xoolee par exemple le cas la banane. léegi suñu producteurs yi ñu ngi sax góorgóorlu mais bu njëkk banaanu Côte d'Ivoire bi. amoon na secret bu ci nekk léegi Sénégal ñu ngi koy def mais ba léegi des na. Hmm. suñu waxee loolu avocat bi ananas bi donc fruits yu bari yoo xam ne dañ koy bay foofu ca Côte d'Ivoire. Hmm. boo fa jugee yow mu fay dund. Hmm. boo ñëwee prix bi ñu lay wax Sénégal ak bi ñu lay ah, wax Côte d'Ivoire day mel ne yàlla ak yaali. donc Sénégal am nañ suuf su doy am nañ naaj am nañ ndox. Euh, àll baa ngi ne yàmbalan kenn bay ko naka nag lañ mën a war a mën a jàngee ci Côte d'Ivoire ba loolu ñu naan autosuffisance ci euh, yenn ñam yi. buñ ko mënta matale tamit ñu jege ko. waaw ah, loolu nag mooy benchmarking bi nga xamante ni autorité yi si boppam ñoo ko war a def xam nga Côte d'Ivoire. waaw ah, benchmarking mooy nga yóbbu gars yi ñu visiter. xool voilà jàng fa jànge fa effectivement. xam nga mm-hmm. loolu tey Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Euh, lépp loo xam ne dañ ci bëgg a avancer ñoom. dañ koy constituer sous forme de filière. Mhm. par exemple boo fa demee da ngay dégg fekk fa benn organe boo xam dañ koy wooye conseil café cacao. Mhm. fekk fa beneen organe boo xam dañ koy wooye conseil anacarde coton. Mhm. fekk beneen filiale boo xam dañ koy wooye conseil huile palmier ainsi de suite ainsi de suite. loolu qu'est-ce que ça bu nee ministre de l'agriculture. mu bëgg a lépp. loolu day bari tellement que mënta am une base de données de chaque filière. producteur ak arachide comme c'est dans le bassin d'arachide lañ koy bayee nga def benn euh, structure boo xamante ni c'est le conseil de régularisation et de suivi mhm. des milles et de l'arachide mhm. nga xam ne ñoom lenn rek moo leen soxal ci agriculture mooy mil ak arachide nga xam ne tey boo leen doon jox seen siège da ngay dem ba Bawol wala ba Saalum nga samp leen fa voilà bassin arachide yi voilà nga xam ne mhm. ñoom dañuy mën a dem xam ñan ñooy vrai vrai baykat yi mën leen a repérer mën a xam nombre de champs bi ñuy bay mën a xam lan lañ leen mën war a jox pour ñu pour ñu pour ñu améliorer seen bay mhm. de ce fait que ñoom buñ jotee si loolu ñu leen war a jox dañuy xam ñi ko war a moom dëgg-dëgg mhm. mais tey Sénégal bu fekkee lépp benn ministère moo ko soxla mhm. nga xam ne moom moo war a def loolu yëpp ça va être très compliqué Côte d'Ivoire loolu bokk na ci succès bi ñu am beneen succès bi aussi il faut que les gens le le, mooy que du question que ni euh, Côte d'Ivoire day taw taw bu bari moo tax ñu am succès non non ay liggéey nit da koy gëm. Mhm. Côte d'Ivoire seen premier président boobu nga Félix Houphouët moo leen gëmloo ne leen. Mhm. tool nit ku nekk dafa war a nekk au-delà de de de de l'économie dafa war a nekk culturel ci yow. Mhm. moo tax Côte d'Ivoire da nga koy gis fonctionnaire koo xam ne multimilliardaire la mais il faut mu am benn tool. ci ci village am même bu dee dimanche dafa am bénéfice sax da koy def rek d'ordre culturel loolu aussi dafa bokk si li nga xamante ni bokk na ci li leen may succès ci mbirum agriculture ak yeneen ak yeneen yoo xam ne benchmarking bis bu demoon ba am dañ mën a yóbbu autorités yi fan leen war a yóbbu ñu ñu waxtaan ak ñan war a waxtaanal ba nga xamante ni dans cinq ans dans six ans dina am lu bari loo xam ne tey lu ci mel ne café mën nañ ko bay fii ko bay Sénégal bari na zone yoo xam ne café mën nañ ko fa bay de café alors que nous sommes parmi les premiers consommateurs. voilà voilà donc de la même manière aussi euh, Sénégal dafa war a nekk aussi vitrine euh, la communauté sénégalaise dañu war a nekk vitrine ci Côte d'Ivoire ngir mën a jaay destination Sénégal mais jaay aussi made in Sénégal parce que ñu nit am na lu ñu yàlla may. c'est très important ça xam nga. loolu nag c'est c'est loolu moo moo moo gën a nekk li jaaxal ñi nga xam ne yàgg nañ fa. parce que mm. xam nga dëkk bu fekkee bokk nga ñu fa jiitu. bokk si ñin fa gën a bëgg. Mm-hmm. ba pare sénégalais yi ils ont du mal dans l'économie euh, dans l'économie ivoirienne. Mm-hmm. loolu dafa war a taxaw ñu taxaw gëstu nag xool lan moo ñuy war a mën a may. Mm-hmm. ñu fexe ba dugg ci économie ivoirienne bi comme ni fa maliens yi duggee. ni fa guinéens yi duggee ni fa libanais yi duggee ak ñeneen ak ñeneen. vu que su ñaari réew yi liñ séq. amul benn réew bu ko Côte d'Ivoire séqal wala beneen réew bu ko Sénégal séqal mm, mm. kon ñun nit ñi ñooñu waroon nañoo toll ci économie Côte d'Ivoire foo xamante ni. Mhm. fu la mais tey boo xoolee boo génnee le cas de Yirim Sow génnee le feu Pathé Diop. Mhm. peut-être ay ñett ñeent nga ciy limaan ñoo xam ne percé nañ vraiment ci économie bi. Mhm. alors que yaa mais ñu ngi koy xaar ci yéen la nouvelle génération. voilà léegi nag loolu loolu nag pour mu am. ñu ngi ñaan autorités yi ñu xam ne. diaspora européen bi lépp lu ñu war a am. diaspora africain bi war na ko am. fi ne nii mosoo dégg ñu ne euh, état jox na ay terrain ñu nekk Côte d'Ivoire wala ñu nekk toujours nga dégg état. États-Unis wala ñu nekk France pourtant ñëpp ay ay dañoo dem wuti. Mhm. dañu war a am indi Sénégal te ñëpp aussi la liggéey mais loolu aussi c'est le rôle de la diaspora euh, bi nekk Côte d'Ivoire parce que euh, sénégalais yi nga yow ñu nekk États-Unis mais la plupart. ñoom ñooy organiser wu utal seen bopp fii dara. wii en fait euh, xam nga tey moo tax ma ne bu fekkee ne am nañu orientation ñun. Mm, mm. rek loolu yëpp dina mën a nekk. Mm-hmm. mais diaspora africain bi pendant longtemps. Mm-hmm. quand même ils étaient dans l'oubli. Mm-hmm. on les considérait même pas doonuñu leen gestu doonuñu leen boole ci euh, ay ay pro ay programmes yu bëree bëree bari alors que pourtant diaspora africain bi bu buñ ko gëstoo ba ci biir li mu mën a dugal ci réew mi jariñ ko réew mi beneen diaspora mënu ko jariñ réew mi et c'est l'heure de le faire jamono ji dafa jot pour ñu def ko. très bien voilà. la dernière question est très rapidement les doléances léegi nag euh, yéen Sénégal yi nekk Côte d'Ivoire lan ngeen bëgg ñu gën leen ci taxaw. waaw maa ngi maa ngi déjà maa ngi saluer suñu ambassadeur euh, mmh. le général euh, Daouda Niang bi doo ko jógee Côte d'Ivoire mm-hmm. vraiment moom ils étaient à notre écoute mm-hmm. euh, mi ngi dañ ko dañ ko dafa ñëw fii léegi mm-hmm. je pense que li gën a soxla mooy consul général ak ambassade. boo xamante nii ak ambassadeur boo xam ne dañuy xam que ni la la la la fonction ou bien le rôle de la diplomatie c'est d'abord économique. Mm-hmm. ñu xam loolu un nit nag mënta nekk fenn ci bitim réew bëgg fa am koom-koom. Mm-hmm. te d'abord amul sécurité. Mm-hmm. amul assistance xelam dalul ba pare am orientation. ñe ñeent yooyu bu ko sénégalais yi nekk fii ci Côte d'Ivoire wala muy Mali wala muy Mauritanie ba Niger. bu fekkee ne suñ autorité apporté nañ ñu ko comme ni mu war a matee. Mhm. da nga gis ne sénégalais yi léegi dinañ def ay exploit en Afrique de l'Ouest parce que xam-xam bi mu ngi fii. Mhm. te fonk nañ leen. respecté mhm. leen naw seen xam-xam donc euh, assistance nag buñ koy wax mooy. tey xam nga américain bu ñëw Sénégal. rapidement waxtu voilà euh, américain bu ñëw Sénégal. da koy leer que ni problème bu mu fi mën a am. dana xam ne à la minute près. dina am benn nit bu ñëw. laaj ko jàppale ko orienté ko. tout à fait loolu lañ soxla nag ci Afrique yii nii parce que chaque jour nga dégg nit ku ñu rey Côte d'Ivoire wala ku ñu rey faneen ci Afrique yii nii. te du mm. mujj fenn duñ xam mm. wala nit ñun fa tëj. Mm-hmm. ñoo xam ne kenn xamul lu tax ñu tëj leen jaay doole wala yooyu donc assistance bi. Mm-hmm. ak euh, yooyu il faut mu nekk loo xamante ni dañu siy dimbale bu ñu si dimbalee ba Sénégalais yi yëg ne. Mm-hmm. amatuñ lu ñuy ragal. di nga gis bu baax danañ am ay jéego yu a a mag. jërëjëf jërëjëf Cheikh Lo opérateur économique nekk fële ca Côte naataango suñu naw lay nekk réewum Côte d'Ivoire yëpp. d'accord ñu leen sant bu baax ñu merci beaucoup. jërëjëf merci moom la ñu doon dalal muy opérateur économique nekk itam euh, doomu Sénégal buy dund ca réewum Côte d'Ivoire ñuy ziar itam ak di nuyu ak di tatagal la communauté sénégalaise bi bàyyi xel télévision Futur Média léegi léegi mbokk yi ñëw ci xibaar yi ci wolof ci yaatal.